bu mu laal suuf nañ ko yëkkati bu doon ñu yëkkati bu mu laal suuf ilaawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi aywa murit aywa murit murit ku ne mën nga dara bisub jaayante daay safinatul amaan Touba parcelle ak i banqaasam ci réew mi bitim réew ñooy woote fii jumaay sëñ Touba ji ci parcelle samedi lay tollool muy le 7 janvier bëgg nag mbooleem yoon wi mbooleem jàmbaari sëñ Touba yi daayira kenn ku ci ne na xam ne kat woote bi dara waralu ko lu dul jaayante jaayante nag mooy mooy li nga xam ne ab jullit mënu koo ñàkk bañ a def dañoo jaay sunu lépp seexul xaddim am yéene nag bëgg koo liggéeyal taxawalal ko barab boo xamante ne nii kër lislaam la muy kër sëñ Touba di barabu daara ji waaye di barabu lislaam di barab boo xamante ne nii dara taxu koo jug dul defar doomu aadama defar doomu aadama nag ci tedd nga ci jikko yi nga xam ne maqaarimul axlaax ci jàng ak yar loolu rek a taxoon sëriñ bi wooñu ngir defar nit loolu nag mooy mooy mooy mooy mooy woote bi fii ñu nekk nag ci gox bi yàlla na fi te daara ji bëgg koo def waaye yéene ci ñëpp nag yéene ñëpp ñu ñëw ci liggéey boobu kon bis bi daal ñu ngi ku ko dégg rek na xam ne mooy sag woote woote bi nag jëf la kon jëf ji nag mooy kenn ku ci nekk la nga am bu ci xeeb dara bul ci yéem dara luñ ko sëf àttan na ko te buñ ko ci defee sëñ Tuubaa rek a tax ñu di ko ci def te liggéey bi bu sottee kenn moomu ko kudub moom kon na ñëpp waaj ba jekk te fas yéene ñëw wuy si ci woote bii nga xam ne daayira Safinatul Amaan nga xam ne murid yëpp xam daara ji te ràññee leen ci seen doxin kon nag bu ñu wootee jàpp nañ ne mbokk taalibe yëpp ñu bokkal paspas bu ñu gëstoo dinañ leen gis. moom laa suuf nañ ko yëkkati noonu bu ñu yëkkati moom laa suuf ilaahu kalimatillahi al loolu dong muy